lay taala wa barakaatu mbokk yi ñoo ngi teew fii ci kanam Serigne Bassirou Mbacké mi toog toogaayub borom Daarul Muhti jataay bi nag li ko waral mooy néegub yàlla bi nga xamante ni ki njëkk a wuutu borom Daarul Muhti di Cheikh Mamadou Hawa Balla 1965 la woote wax ni borom Daarul Muhti day li mu bëggoon ci dëkkam bi juma moo ci des woote woote bu boobu dimanche di fenn benn fan ci weeru mai 1966 mu teg xeer wi kere ba muy teg xeer wi nag am na lu mu waxoon dencuma dërëm waaye am naa yàlla lépp lu waay indi dinaa ko def ci liggéey bi waaye su ma doon dem ba maag sama njaboot gi nu dem ca waaxum ndakaaru waax mooy poor di fa liggéeyaani ñëw di ko def ci jumaa ji jaral na ma ko dinaa ko def enregistrement bi yi ñu yor itam dégg nga mu naan na ci ñëpp def ni ma def luwaay xam na ko ci wax lu waay am na ko ci def moom nag jumaa ji sunu borom dogal na liggéey na ko ñaari at la fi taxaw muy 1972 1973 ndax sécheresse ci nawet yu gàntu ba koy tabax itam waa kër borom daaru muxti la woowoon wut tool àllarba boo xamante ni jiwu wi taalibey borom daaru muxti yi ñoo ko daan joxe bi jumaa ji yeggee itam ki ko wuutoon di Cheikh Abdoul Khoudous nekk fi ñuy dem ba waa dëkk bi xajatuñ ci jumaa ji ñetteelu xalifa borom darul muxti di Serigne Cheikh Khady Mbacké moo yokku jumaay daarul muxti euh, ginnaawam Serigne Abbas moo ko wuutu moom it gis nañu li mu fi jëf ki nga xamante ni bii nag mooy sëriñ Bassirou Anta Niang di juróomeelu xalifa borom daarul muxti noonee magam Cheikh Mamadou Haw Balla defoon woo ñi yaakaar ceerno ngir ñu doon dajale jiwu wa ngir tool àllarba ba moom it mu fas yéenee indi coppat yeesal ak taaral ci jumaay Daarul mooti loolu moo tax mu fas yéenee teg xeer wi kon nun ñëpp dañuy ànd déglu sëriñ Basiru Anta Ñang kaddu yi moom la yëkkati ngir woo ñi yaakaar borom Daaru mooti muy doom yi sët yi ak cheikh yi kon nun ñëpp dañuy ànd teewlu sëriñ Basiru Anta Ñang kaddu yii la yëkkati aousubillahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wala hawla wala quwwata illa billahi al ali al azim allahumma ixfir li ma la yaxlamoon wala tuwaaxini bi ma yaquluun maa ngi leen di nuyu yéen euh, samay bokk ak taalibe yi euh, lii nag day muqaddam muqaddam ci arab mooy lu ñu jiital soog a tàmbali wax ji mooy nii ko sëñ bay waxe sëñ bi Modou Awa Balla moo liggéey jumaa ji ba mu yegg bi mu yeggee eh, sëñ Abdou Khoudous ñëw digle ñu defar ko ñu ñëpp ànd ci liggéey ba lépp luñ joxe ñu jox ko moom lañ ko daa jox ba liggéey ba yegg Serigne Cheikh Khady ñëw bi mu ñëwee yokk ko ba mu yaatu lool mel na war ba jamono yàgg nag jamono bu yàggoo moom lu luñ defar day am lu cay yàqu ak loo xam ne lii lu cay sëkk la nag la sëñ Abbas ñëw moom it def ci la man lépp góor la ci lool ñépp góor lañ ci taalib yi yëpp góor lañ ci yëpp ciy góor léegi nag dafa aajo defaraat defar yoo xam ni yu réeréy lay doon moo tax ñu xamal taalib yi yëpp bëgg ñu góorgóorlu ci defar ko ba mel na mbara mel népp defar gi nag amul kii amul kaa ñëpp noo ci yem teg nañ ko ci loxol ab commission boo xam bii bind nañu ko defar nañ ko ba ba defar nañu plan bi léegi liggéey rek a des liggéey rek a des jox nañ ko teg nañ ko ci loxob sëñ Abdou Samad bi nit la koo xam ne kii doy na ñëpp looloo tax ñu def ko te doy ñëpp jafe na waaye doy na ñëpp ni ma doyee ba teg ko ci loxoom ni la doyee ñëpp ba nag li ma bëgg nun ñëpp nu dem fee teg xeer wi ci ndigalal sëñ Muntaxa mi nga xam ne mooy kilifa murit yëpp ndax ñun ni ko sëñ Bay waxee daanaka rek eh, wax na lépp léegi nag danoo am kilifa kilifa gi mooy sëñ Muntaxa murit moom benn bopp la mi ngi mel ni oto walla saxaar lu mën noon di doon boo dindee moteur ba rek jeex na moteur bi mooy sëñ Muntaxa lu mu dugal nu def ko lu nu nu bàyyi ko te moo ko digal bon nag ñëpp lu waay man man daal li ma am lépp danaa ko ci def du ma ci téye dara maa ngi ñaan koo xam ne ki yaakaar nga borom daaru li nga mën nga def ko ci nu def ko ba mel noo xam ne nii ku ñëw dana xam ne eh, la sëñ Tuba waxoon ni borom daaru ya maay yow yaay man maay yow yaay man yow mi nga xam ne musunu teqale ko ba ngay gone ba bi nga doone mag musunu tàggali ko sëñ Baye dana ko mën a waxaat <laughs> ndax man mën naa ko fàtte wala ma Bamba ko yar yor ko ci waxtu sixar yi te musa tàggoog moom li waxtil kibari Bamba ko jàngal alxuraan ak xam-xam jàng liggéey la boole woon ba am ndam waaw loolu rek ci gàttal moom lañ leen bëgg wax ah, dem nag ñëpp ñaanit yàlla def bu yegg te mel na mu war a mel ci barki Sëriñ Tuubaa ak borom Daaru